léegi sëriñ bi am na façon téere yoo xam ne bu ko mos bëgg day neexal naari gànnaar yi ñu bindal ñu bindal ñu bindal ko ko am na boo xam ne daa daa bindul daa lijjanti ay téere te te wax nañ ne loolu ñetti dërëmi ngurdu ñetti dërëmi ngurdu lu amoon solo la xaalis bu bari la woon ñett ñetti dërëmi ngurdu ndax booba ay ab tànk la ñuy wax tànk ab tànk gone yi nekk xam naa xamul yu tànk ab su yooyu yëpp xeeti xeeti wàññi la woon 15 ba ci dërëm dërëm lu am maanaa la woon yaakaar naa lim man bëriwul léegi nag mu am bindu lu téere yoo xam ne ñetti dërëm la ci war a joxe ñetti dërëm waaye sëriñ bi ànd ak maam Thierno ak sëñ Massamba Diop Samb boobu sëñ Massamba Diop Samb ñu ci daara ñu def tournée kuñ xam ci ko baax dem fa sëriñ bi xam nga daawut laaj waaye comme doomi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ku siiw la ci xam-xam ak ci daraja léegi-léegi am na ñum jàngaloon ba noppi am nañ barke léegi-léegi itam mu seet ay wëlër yu baax yoo xam ne dem na fa rek yendu ba ngoon jot moo tax ab sëriñ kenn du tas yaakaaram ab sëriñ ab sëriñ saa yu ñëwee ci yow xamal ne yitte moo ko yëkkati bu la waxee ak bu la waxut ki maanaam képp koo xam ne ab sëriñ dana ñëw ci yow ba ñibbi te siyaare woo ko dara ab dof nga te bari na loo xam da nga ko ñàkk ndax am na ñoo xam ne jàpp nañ ne li fekk ñëwuñ ne la nanga moom a yëkkati rek warul laa jox dara am na ñoo xam ne duñ la wax mukk waaye saa yuñ solee seen dàll bi dem ci taalibe yi am nañ ay aajo waaye nag bu ñëwee nuyu la toog yendu ah boo bu bu yeewi ko luy sansam rek mu jëlee ko fa jàllaat ci keneen waaye du ñëw naan la lijjantil man nangam loolaa soxla donte loolu dagan na waaye am nañu ko mënut sëriñ bi wër a wër wër wër wër wër ku ñuy wax sëñ mujj bu sëñ mujj bu jigal sëñ mujj bu jigal ca njigal moom rek moo ko fi jox am mbaam sa mbaam ma gàdd ko di ko indi du yomb waaye moom def na effort ndax wër na ba sonn moo it loolu la ko fekkee ñu mujj sëñ bi mujj am mbokkam moom dajal may ko ko ñu ñibbisi biñ ñëwee sëñ soxna soxna Fatou Issa di di di di leen xool rek ñu dugg ko génn fekk naar bi yaakaar naa moom mi ngi xaar moom moom mi ngi fi toog moom di xaar fas yéene ñu fay ko li ñu koy fay ba mu ñibbi moom ah sëñ bi am ak jaaxle lool soxna Fatou si daal di woo ko ne ko ne ko ne ko Ibrahima loolu ngeen di dugg ak génn nii rek mu ne ko ah sëñ Ahmadou de moo am lu mu bëggoon a jox naar bi lu mu seq ak moom ci ay téere waaye dañoo dañoo génnoon waaye dafa mel ne sottiwut mu ko loolu koy jur ngeen di génn mën ngeen ma ko wax daal di ay lami teqal maam lam ay lam lamam nga xam ne tey. mën nga ne jigéen joo xam ne daa yor or sa doomi mbokk moo xam ne sa mbokk mu jigéen moo xam ne daa génn àddina doomam ju góor mu bàyyi ko fi mu am problème ci liggéeyam nga jaay sa or jox ko te yàlla tax ak jafe est-ce que loolu mën naa nekkati est-ce loolu mën naa nekkati mu jox ko loola ñu dem fay ci teer yi moo tax biñ nekkee njarim Sëriñ Tuubaa daa am benn bis boo xam ne sëñ mujjoob ma sàmba seex na ndax doomi Cheikh Cheikh la sëñ mu daaw bàll la sëñ Fallou déet Cheikh Mouhamadou Moustapha la sax Cheikh Mouhamadou Moustapha boobu kenn ku ci ne say wajur ñu ngi fi am barke tund woo jaar ñu teral la takkal la fas jox la ba saxul sedd ñu daje ci sëñ bi di si nekk sëñ bi toog bu mu jàng mu yéem yàlla te booba ñetti booba téeméer dërëmi ngurdu yombut waaye ñoom seen barke bàyyi may na leen ñu am téeméeri dërëm booba téeméeri dërëm ñooñu ñu am barke lañ maam Thierno sëñ Massamba Diop Sam sëñ Manoum Sam xam nga wees na mën am barke doomi sëñ Tuubaa ñoom ñëpp ku ci mënta am téeméer amut booba te téeméer jamono ji mooy koo xam ne mën ngaa yor ay millions maanaam sa sa sa li ngay doxantoo daal lu mu néew néew ay cinquante millions daal yow daal seex nga boo xam nga am nga oto bu rafet boo xam ne yow fu fu la fekk moom ay dix millions ki quinze millions moom du dara ci yow la téeméer noonu la téeméer tolloon. noonu la amee woon maana sëñ bi taw ba mu jàng mu yéem yàlla dina xool ba mu jàng mu ne ñeen ñetti ñii de am na ci ñoo xam ne seen ñetti baay mas nañoo wër ay fan ngir ñetti dërëm mën nañu ko am daa dara ne yéen du ngeen def ak loolu ku ci ne ci ñun téeméeri junni tawu ko mu ne ko waaye loolu lépp ci sama barke la amee de ci sama barke man waaw kon yooyu ñu bàyyi ko xel soxna soxna Fatou Issa ku am maanaa la gis nga bi sëriñ bi demee ci géej gi tiital nañ maam Thierno tiital njaboot gi tiital goo xam ne ndax xam nga xam nga fi ne sëñ bi biñ ko yóbbuwee biñ ko yóbbuwee ci géej gi Gabon Gabon am na juróomi at yoo xam ne dafa am rupture diggante ak taalibe yi kenn xamul ci moom dara. fii ne am na juróomi at yoo xam ne kenn tënulu Sëriñ Tuubaa kenn xamut ba xam jóge na fi kenn xamut ba nga xam mi ngi fi xamut ci taalibi yi daara xamutul ci maam Thierno xamutul ci kenn xamut Sëriñ Mansour Diop Dior kenn mboolem ñi toppoon Sëriñ Tuubaa ku ci ne dangaa nekkoon di di di di di dëgër dëgërlu waaye xamatu sëñ bi dara maam Thierno daal mooy rasul xadra moo nekk ci bopp bi seex bu nekk boo amee sa addi yi nga ñëw jox ko wéyale liggéey sëriñ Tuubaa fa nga nekk say bi topp la ngay yar ka jàngale ak a liggéey waaye sëñ bi moom am na dër boo xam ne ñëpp dañ ne ñoogu rek kenn xamul guddi wala bëccëg lañ nekk diir boobu dañoo xam ne dañoo jékki tubaab yi ñu doy waar lañ ca ca jubad yi am benn bis wax dañoo jékki-jékki rek daal di yónnee ab bitéel daal ci xam nga tubaab yi seen aadam mooy bu kenn wàñcee ab liggéey dañu koy lakk def ko ci bitéel ab bouteille bitéel yi am na ñu bari ñoo xam ne boo demee ay ay yenn réewi tubaab yi nii seen armoire yi dañ lay wax sama maam a ngi ne sama baay a ngi ne kee sama tànt la ay bitel neen lakk so leen ci ay bitel teg leen seen kaw kaw coiffeuse moo ñëw ne daal ci def seen photo papa ne kii mooy sama papa ñoom noonu la suule ñàkk solo ñu jékki-jékki yónnee ab bitel rek daal ne sëriñ bi wàcc naa ab liggéey mi ngi noonu maanaam maam Thierno li muy dëgër dëgër tiit na tiit na waaye fekk ne soxna Fatou Issa dafa dafa bëggoon sëñ bi di ko taral mu jàgg sëñ leg ben bis nek sëñ mu ne ko soxna ci lo bëgg ma ma defal lako ko mu ne ko man de lenn nga la bëgg de bama ma ko lool xam ne ko defee sama xol sedd moy buma buma gennon aduna dal nga duggal ma ci sama bàmmeel sama xel dana dal mu ne ko lo rek mu ne ko ah, loolu maa la ko defal ma lay duggal ci sama bàmmeel soxna Fatou isa daal di wax maam cher ne ko sëñ Tuubaa lu mu wax def ko sëñ tuba jóge fi mo ne mu won ma lay duggal ci bàmmeel dana ñew sëñ tuba lu mu wax dana ko def Thierno demal wiyé sa liggéey moo tax wax nañ ne jamono jooje soxna Faati Isa mooy ki gën a gëm sëriñ bi gën ko wóolu ndax ñëpp a jaaxle te jaaxlewut waaye wax nañ ne Thierno it euh, ku am sago la ku bari sago la benn yoon la mas a daanu benn yoon maam Thierno ak dëgër ku am maanaa ngi noonu mook si Ahmadou Mbacke Gaynde Faal mi ñaari ñooñu ñu mu leen nawee ñu am maanaa lañ maanaam wóor bu njëkk ba mel ne Thierno ndox gis mais suñ Cheikh ku amee na moom maanaa xam nga gor dëgg day am jom day ñeme am sago dara du la déranger Thierno ak am solo ku am solo ngi noonu Thierno Birahim kooku moom maanaa maam Thierno benn yoon dong la ma benn yoon mooy kere bi njëkkatee soxna Faati Isa ca ci yéen Sëñ Tuubaa ñibbisee ba mu jàgg mu ne Thierno soxna si digg bi jege na indil ma ko ci yéen ndax du ma mën a dem fekki ko fa nekk te digg bi jege na indil ma ko ndax dama daalente woon moom dara bi ñu ko indee ci yéen keroog biñ ko defalee këram maanaam bi wàccee ab liggéey ñu defal ko lépp sëñ bi jullee ko tekk ci kaw suba melam daal dugg na bismillah daal di koy yëkkati carnu daa yuux keroog la mas a daanu waaw la mas a daanu ndax keroog ba ñëpp jaaxle soxna Fatou Issa moo nekk woon sëñ bi lu mu wax dana ko def ci carnu xam ni sëñ Tuubaa mii kii ku yàlla fara ngi nii waaj sëñ bi